xamante ne ay maire waaye tamit ay kilifa doxalinu yamane ak njublang gu metti lan wi def ci suuf si nga xamante ne askan wi ñoo ko moom lu ni mel la Thierno jàng di maire bu Sindia daa di def moo tax la témoin yéene kaay di xam ne ni kon moom Diagne mi ñu falaat bu yàggul dara ci boppu mairie bu Sindia ak i naataangoom dañu leen di def su mandat de dépôt ñu leen di toppee kon wàllub escroquerie foncière ci ay suuf yi nga xamante ne dañu ko jaay lu ëpp ñaari nit mu nekk coow lu rëy lu ñu nemmeeku ca gox ba daanaka ay bés a ngi nii coow tamit moo dox diggante Aminata Assome Diatta ak Abdoulaye Daouda Diallo li ko waral Walf Quotidien di xam ne ni kon moo ngay tukkee ci importation yu jëm ci wàllub denrée alimentaire yi source a xëy tamit ci coow bi xew ci point E diggante askan wa ak ab promoteur algérien bi nga xamante ne ab immeuble bu toll ci fukk ak ñeenti étage la fa samp moo ne de askan wi yàgg nañoo ne mukk du ca dal ndax li mu leen di yàkkal ci seen wàllub dëkkuwaay ngelaw bu doy tamit bi ñu jàpp ne amatuñ ko moo tax ñu dogu ci ngir defante ko ak promoteur bi Macky Sall li mu namu def ci Kër Massar mu ngi ne fàng ci xët bu njëkk yéene kay Bambey mu duppee ko grande offensive pour Kër Massar ndax ci ndajeb conseil des ministres ni ki démb moom njiitu mi sàkku na ci ay jëwriñam ñu daal di seen loxo ci programme bi mu nasoon ngir Kër Massar fii ak fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu nekk bokk na ci lu ñuy xaar ñu daal jeexal ni mu gën a gaawee route des Niayes bi naka noone tabaxub centre de santé gare routière bi ba ci sax lycée d'enseignement technique bi L'As Quotidien di dëggal diwaan ba ba ñu wax ko li ñuy xaar ci moom Aliou Sall xaaruloon benn yoon dogal bi nga xamante ne maire yi féete ci opposition bi jël nañ ko njiital AMS ŋàññi bu baax taxawaayu Ousmane Sonko ki ñoñam ñi namm samp beneen kuréel bi nga xamante ne dafay ëmb maire yu opposition bi mu jàpp ni kon loolee dëppool ak yoon moo taxit moom rakku njiitu réew mi mel ni kuy talal loxo maire opposition bi ndax seen diggante yi tàmbale ñagas diggante Barthélémy Diaz ak Macky Sall mu mel ni gën na ñagasati Vox Populi xëy ci li ko ñeel wàllum ndox ci ndakaaru mooy li jur coow li moom maire bu yees bu ndakaaru bi àndul benn yoon ci ñu ñu defee ville du Dakar ab invité moo ne dee waroon naa bokk ci ñi koy organiser moo taxit Vox Populi di xam ne ni kon moom Barthélémy Diaz du teewee boobu boobule ndaje ndax li mu mbëbët mooy amal beneen ndaje bi nga xamante ne dina wax ci jafe ndox ci diwaanub ndakaaru ci jamono ji nga xamante ne Macky Sall moom lu muy sàkku mooy forum de l'eau boobu ñu daal di koy amal ci anam yu mucc ayib moom Macky Sall ci biir l'observateur mu nekk ci jamonoy métti am ak wàllu politique moo tax yéene kaay groupe Futur Média bi di xam ne ni kon jamono régime bu Macky Sall ci boppam moo nekkee ci jafe-jafe ndax li mu war a def ba askan wi gis bopp ci njëg yi nga xamante ne mu ngay gën di cher ak tolluwaayu politique rawatina législative yi ñu dëgmal ni Macky nekkee ci jamono yi métti noonee tamit la atekat bi nekkee ci jamono yi tar li ko waral mooy dossier yi nga xamante ne yëngalaat na ko ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr bataaxal bi ministère des affaires étrangères daal di becc ak tontu avocat Ousmane Sonko li jëfandikoo ci bis bi mu nekk lu mel ni mburu bu tàng ci loxol attekat gi moo tax ci biir yéenekaay bi maître El Hadj xam na ni kon état ci boppam moo ci war a jël ay dogal ndax mu génn ci jafe-jafe gi jafe-jafe dëgg la Mimi Touré nekkee jamono ji le vrai journal moo ko fësal tey ci xëtam bu njëkk te di jàngat ni kon moom jëwriñ ju njëkk moom fa mu toll woon ay jamono ak léegi ci situation bu mu nekk mu mel ni yàlla ak yàlli ba tax mu bett sax askan wu bëri ndax jamono ji yenn saay ci ñu koy dégg ay coow politique moom soxna Aminata Touré tekkiyatul dara wàllu koom soxal tey le quotidien yéene kay dikkaat ci kàddu ki nga xamante ne mooy amadu ot mi xam na ni Sénégal mu ngi tollu jamono ji ci taux 6 virgule 1 pour cent ci wàllu PIB yom mu mel ni kon ku tàmbalee sukkali boppam gannaaw mbasum covid 19 mi mu jàpp ni kon dafa lompoñonoon koomu réew mi ci biir yéene bi mu mel ni jëwriñ ji di amadu ot mu ngi dalal xel yi waaye ndaxam xel mën naa dal ci wàllu koom-koom ndax Sud Quotidien li mu jàngat tey mooy réew mi boo moytul ci guutal a jëm te loolu li ko waral du dara lu dul njeexintal coow liy judd diggante Russie ak Ukraine nga xamante ne réew yu ci mel ni Sénégal du ñàkk dinañ ko yëg Sud Quotidien di ci def ab gëstu bu yaa dénk ci tamit kàdduk Meissa Babou di ab économiste jàngalekat tamit ci université Cheikh Anta Diop naka noonu Mor Gassama ak yeneen i naataangoom ñu ciy tamit fësal ay pexe yi nga xamante ne réew mi mën na faa jaar ngir mën a mucc bu baax ci xiif bi nga xamante ne moo ñuy yoot li yoot Fatoumata Tunkara ak ñi mu àndal mi nga xamante ne faat loolee li war a métti lay doon libération yéenekaay di topp dossier bi di ñu xamal ni kon moom Fatoumata Moome ak kii di Fatou Wagué nga xamante ne ñoom ñoo def jëf ju ñaaw jooje seen maam bu jigéen Sia Souare naka noone wujju gane gu ndaw gi ñoom ñoo leen yebal ñu def lu ni mel gendarmerie nag ak procureur bu Kédougou def nañu ci seen enquête bu mat sëkk ba tënk ci ni kon moom Fatoumata Tunkara ak ñi mu àndal mënuñoo mucc ci mbir mi ñeneen ñi waruta mucc ci jëf ju ñaaw ju ñu def muy ñetti sulaar ñi nga xamante ne kon dañoo sàkku ab ndaw gu tollu rek ci fukki at ak ñeent réew mi quotidien di dikkaat ci viol collectif boobee nga xamante ne ci Rufisque la xewee te ñu teg loxo kenn ka waaye yeneen ñaar ya ba léegi yoon nang leen di wër Chelsea wër ba am qualification ngir quart de finale Ligue des champions stade quotidien di dikkaat ci ndam li nga xamante ne Edouard Mendy ak i ñooñom am nañ ko niki démb ci kanamu Lille ca jamono jooje Villarreal bu Boulaye Dia daa di indi mbetteel ci kanamu Juventus de Turin ak ndam lu yaa lu toll ci ñetti bal ci dara ndam li am seen di wër ci kanamu Bombardier sundu lamb di